rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ni suivre ñu ngi ñuy ñëpp leen ziar day ñëwaat beneen kayfiya bu am solo bu jëm ci wàllum wërsëg ndax dangay xam ne jaam yépp seen wërsëg mu ngi ci yàlla mi nga xam ne mooy rabu samawati wal ardi mooy seen wërsëg ñoom mu ngi ci mi nga xam te ni moomam asamaan moom ay suufam mooy wërsëg yi nag ku ne nag boo xëyee dangay ngay sabablu ñi bàyyi xel ne dafa am ñaari baat yu nuroo te du benn wakiilu ak tawakkulu da dégg ñu ne man nit ñi ñu ci bari li ñuy waxe yenn saa yi dangay xam ne topp seen nafsu moo ko waral dangay dégg ñu ne damay wakiilu bàyyi lépp yàlla wakiilu moom boo ko defee doo bàyyi lépp yàlla dangay def li nga war a def te bàyyi la def si yàlla tawakkulu nag ngay bàyyi lépp yàlla mooy doo def dara nit ñi nag wakil gog ñuy wax ñu ci bari gëmuñu ko li tax loolu mooy ku ci feebar doon damay tëdd xaar yàlla faj ma dee da ngay dem hôpital boo xiifee da ngay dem wuti loo lekk boo mare da ngay dem wuti loo naan waaye bu desee mbirum jaamu yàlla nga nañ bàyyi lépp yàlla man lépp sama lépp ko bàyyi loolu ay wax la joo xam ne njuumte la wakil nag suñ ko waxee rek xamal ni mooy boo xëyee da nga dem liggéey pour wuti li nga war li ci des yàlla xéewale la tawakkul nag mooy nga tëdd sa kaw lal dépend la bëgg tëdd naa ko am loolu mooy tawakkul mooy doo def benn effort te li nga bëgg di nga ko kon ñaari baat yi niroowut ay bi nag ba tey mu ngi ci cóortul xóot bu ngeen ca demee di ngeen ko fa fekk te bopp isi ba maam min dabatin fil ardi ay bi mu tegtale na ngeen xam ne yéen nit ñëpp nekk ci kaw suuf seen wërsëg yëpp mu ngi ci yàlla mi nga xamante ni mooy moom asamaan ak suuf kon yàlla mooy wërsëg ñi nekk ci kaw suuf ak ñi nekk ci asamaan yëpp te ñëpp seen wërsëg bi yëpp mu ngi bàyyi ko ci yàlla moo tax xamaa xamaa min dabbatin fil ardi illa ala allahi risquha na ngeen xam ne lépp lu nekk ci kaw suuf di dox man yàlla maa koy wërsëgal melentaan bi dugg na ci picc mi dugg na ci sanqalañ bi dugg na ci wa ya'lamu mustaqaraha wa mustawdaa kullum fi kitaabin mubiin na ngeen xam ne loolu lépp ngi téere bi nga xam ni mooy aji bir biin mooy lu bir kon seen wërsëg yéen yëpp yàlla xam na ko li nekk ci suuf ak li nekk ci doj weeg lépp yàlla suñu borom xam na ko da xam ne loolu lépp mu ngi ci téere bi nga xam te ne mooy biir mooy alquranul karim nit ko saa bu xëyee def li war def rek yàlla dana ko dimbali aay bi nag képp ku bëgg wërsëg bëgg wërsëg ju la yomb dëggantaan boo xëyee boo jullee suba ba noppi na ko def fukki yoon ak ñaar wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lam mustaqaraha wa mustawdaa kullum fi kitaabin mubin fukki yoon ak ñaar saa boo xëyee wax ko incha allah di wut dara suñu borom na la ko yombal asalaamaaleykum wa